actuellement. waaw ñaata nit lañ ci jàppagum. mais xaw ma dañu porté plant cité ay nit man li ma porté li plant bi li ci nekk mat na vingt cinq du ñooñu rek mais am na ñu toog tey seen chaîne YouTube waaraate ba pare ni kii kii lislaam rey na ko ki mu ko séqal xaw ma lan dee na kii nit ku bon la te ñooñu plainte bi mais bañ a boq bañ a boq mais yéen réew mi li ko taal mooy wax yu mel ni diw sàcc la fekk diw deful dara ñu maslaa ko après nit ñi def dugal seen biir xol yi ñii ay sàcc la ah ñii dañuy daganal góor jigéen nit ñi teguñu ko fenn nit ñi di wax rek téye sa téléphone boo xëyee wax lu yàq nit ñi lu la neex après dem ñibbi bu ñu la jàppee ñu ne woy woy woy baal ko dafa am njaboot yow ki ngay yàq amul njaboot. après nit ñi bëgg dajaloo naa non ay liberté ak du liberté libertinage la libertinage c'est kon mais bu fekkee bu ñu nangoo li ngeen di wax nii. mooy ci ku nekk fajali boppam la jëm bu buñ eggee ci fajali ku nekk di fajal sa bopp. ci ci ndumbelaan lañuy ñuy dem. ci ndumbelaan lañ dem nekkatuñ ci réew. Mhm. d'accord nit ku wàcc yoon. Mhm. yoon dafa war a dal sa kaw. d'accord alors Mame Mbaye li nga wax. Mhm. ñu bari mën nañ ko ñaawlu. parce aussi du